salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu Gambie am seen xarit la seen soppe Ami Faye ngeen gën koo xam si Collé te dañ fi ñëw ak Koro Artist seen beneen épisode um, ak Kaal Lil Kaal mooy xale bi nga xamante ne macha allah rabbi am fu mu toll nii ci jamono mun naa la wax ne am na fi baat mooy half human half devil ñëw seet si ko tey suñ beneen épisode ak Koro Artist dañoo def danka ñu dox daagu dugg si biir. xool lum ñu amal ci diine bi ak ci islam bi pare ñu xool lum ñu amal tey ndogu waaye gars yi bu leen di faate di subscribe ngeen bës benn icon bi lépp luñ dugal incha allahu rabbi ngeen am ko ndax GMTV ngeen di toppa ba mu ses gars yi toppalem na dugg ci biir asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum dunia am comme ni ñu ko faral di defee am chaque Wednesday wala chaque bés bu mun munti nekk ndax Gambian artiste yi moom fu ñu soxla dañuy ñëw ndax GMTV ñoom lañ fa nekkal ñu ñëwaat am si beneen épisode ak koro artiste ñu am ki nga xamante ne mooy Lil Cal Nema Boyo nekk xale bi nga xamante ne macha allah moom moo génne woyam mu ne half human half devil waaye tey dinañ xam ndax devil bi daf dee jaamu yàlla si weeri koor bi ndax devil bi mu ngi si yoonam rek gars yi am ah. damaa bàyyi jox ko mic bi mu nuyoo wax ak askan wi yi ma am pour laaj ko ko laaj ko ko ngeen dégg mu tontu ñu Kaal nuyu na. Eh, maa ngi laa fay tey nag danga nga toog ak jàkkaarloo askan bi muy Gambia àdduna ndax GMTV fu nekk la nekk ndax suñu nee kooru artiste. dañu ñëw artiste bu nekk ñu dugg sa kër pour ñu xam ndax yow ci musique bi rek nga nekk ndax tamit yaa ngi topp sa yoon yaa ngi jox yàlla li nga xam ne moom la moom ndax weeru koo dafa nekk weer boo xamante ne macha allah yàlla moo ne lépp loo def man maa lay fay buntu yu bon yëpp la tëj mu tëj buntu boo xamante ne yónniwul benn malay malayka moom mooy fayal boppam léegi dañ bugg a tey askan bi ñu wax ak nga wax ak askan bi wax leen yow kaal sa bëccëg weeru koor en tant que artiste noo koy dundee ndax dangay ngay dem studio ndax da ngay bind woy ndax da jël kurus bi di wirda ndax da ngaa da nelaw wala nekk si mobile bi yow sa bëccëg weeru koor naka nga koy dundee waa Gambie loolu lañ bëgg a xam. waaw ah, asalaamaaleykum once again xam nga di nuyu Gambie yëpp di nuyu GMTV di la nuyu yow xam nga di wax ne gars yi ne si duut lil kaal ne ma boyo dalal naa leen GMTV <laughs> yéen a ngi neema Kunku a ah, comme nu ma dee dundee bëccëg gi weeru koor bi comme nu ko ñëpp di dundee rek am nga yenn saa yi nag suñu amee time dañ dee dem studio xëj na comme mit fa suñ gars yi ñoo xamante ne ñooñu leen dee jobal lu si mel ni ñoom raas ak gars yi ko sam nga job bi dafa war a nekk loo xamante ne dafa war a continuer yaa understand but ah, ah, dañ ko daf daf dee utee nag ak su su suñ nekkul si weeru koor xam nga yaa understand su ma nekkee si weeru koor ak su ma nekkul si weeru koor dafa uti so obviously comme noonu la faa demee rek course bi nag <laughs> bunta ñaaxal ni weeru koor bi lañ de mën a am leisure time pour xam nga mën a toog di jaamu yàlla hundred percent even though even su nekkul weeru koor sax dañ ko war a jaamu bot comme weeru koor bi la ñuy gën a am time pour mun koo def hundred percent yeah léegi yow Kaal si foofu laay ñëwee comme ni nga ne weerikoor bi lañ di gën am time pour jàmm ko 100 percent loolu moom ñu bari xam nañ ko ndax su dut weeri taa seytaane daf ñu dee yomba yóbbaale waaw te weeri koor nag ku nekk lépp li nga xam rawoon naa da nga ko dee bëgg a dabu léegi ñu bëggoon a xam ndax yow da nga dee julli sa five daily prayers su fekkee nekkut weeri koor no yenn saa nag moom ah <laughs> yenn saa yi ñu ñu ñu lifin ko naka sax yenn saa yi seytaane ëpp ñu doole nag to be frank enough waaye ah dende julli nag spécialiste suñ koto bi comme maa la ko wax ras moom si studio bi su time jotee même su fekkee ne yaa ngi dugal. yaa ngi dugal song bu ngeen nee si àdduna bi sax da ngeen am pour stop ngeen dem julli bu ko su moom su jógee dem di julli iya tamit sa kersa amul war nga am kersa boobu tamit toog dañ dee dem julli suma booy ba fa dee àndale dañ dee gis koto bi su time jotee daf dee dem julli te loolu maa ko santé bu baax a baax suma gars yi tamit ñoom ñoom ñëpp xam nga ñu ñëpp jullit leen dama judd gis leen ñuy julli yaa understand yenn saa nak nag seytaane ëpp ñu doole moom ñu ngi ko jégalu yàlla bu baax si loolu fii nag mooy kooru artiste comme ni ma la ko waxee rek dañoo xam natt sa diggante yàgg sa borom léegi kaal si julli boobu laa bugg a yow nga ni nga dee taxawalee juli sooy julli ni nga dee taxawalee julli noonu laa bugg nga taxawal julli ñu dégg waaw astafurlah astafurlah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya alal salat hayya alal falah qad qamati salat allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah sayyidina muhammadan rasulullah sallallahu alayhi na Gambia dafa mel ni kaal right now nii mu ngi amagum yëpp ko rek which means ne kaal ndeysaan mu si musique bi waaye taxu tam mu fàtte digganteem ak yàllaam benn yoon léegi last question bu ma am pour laaj ko kaal after su ko defee bi yaayam papaam ak ñëpp si xaritam yi ñu teew fii ñu am lu ndaw lu ñoo wax si kaal kaal dama bëggoon nga tare ñu benn suura boo xamante ne du ma ne bii la wala bële yow boo xam ne mun nga nga tari ko yow ñu tëjee foofu sa interview ñu ñëw sa gaay ida sa papa wala sa yaay ak suñu anti bi maybe some of your friends ku bugg a wax ci yow mu ñëw am lu wax waaw wa tiini wa zeytun wa tuuri siini wa hazal baladi amin laqad xalaqna al insana fi axsini taxwim summa radadnahu asfala safilin ila lazina amanu wa aminu salihat falahum ajrun xayrun mamnun fa maa yukazibuka baxdu bi diin alaysa allahu bi ahkamil hakimin macha allah bi ak sa yeah uh, dañ la woon ne thank you so much once again si nice gesture bi comme am nga apprécier neen ko GMTV yéen a def job bu nice di feeñal upcoming artist yi mel ni suma maas ñun dëgg dëgg apprécier sa job yow Ami Faye xam nga di wane tamit uh, spécial thanks si suma famille bi yëpp suma limee dama juum bilaay ñoom ñëpp jàmbaar leen to be frank enough comme depuis si EP listening bi ba léegi comme xam nga ñu ngi téye comme si diggante bi soriwul diggante ipi listini bi bi foo weeru koor la yow xam nga si dara ba pare tey tamit di same thing te yaa ngi gis xam nga yu gars yi di def ñi ngi xam nga ñu ngi bàyyi seen soxla yëpp ñëw pour man so aw ma aw ma seen fay muy mag muy xale da gis ne xale bu gëna a ndaw si famille bi sax daf ma dee woon live ne man énee naa la dara te loolu lu rëy la si man moo ma gënal sax ay góol wala leneen loof bi na fa nekk rek man comme su ma amee loof bi si ñoom si ñoom la war a jógee dem si dem si biir so ñoom ñu ma ko wan mënoon nañoo toog ku nekk jaaw sa ñàmbur waaye comme dañ ma ko wan te apprécier naa loolu loolu moo tax man may gën a xam nga rey suma boo fa lu ma muur sax dama ko def ngir ñoom su kontaan naa trop sax you know ko dégg am dañ ne tungu ne du teew ah, tunga ne du teew tere ñuy nataal te dañ ne féccalee su neexee ay waajuram ñoo jàpp si tànk yi kaa jërëjëf kontaan nañ léegi dañoo oo suñ papa moom tam mu ñëwee nii macha allah mu am lu ndaw rek lu moo wax si dooma ak ñaanal ko ko waaw wala yaayam wala suñ baajen bi xam nga wala anybody si gaay rek da ngeen naa ñëwee nii rek xam nga am lu ndaw la nu wax si kaar rek xam nga yokk ko jom yokk ko courage waaw ndaxte yoon bi yombut waaw te bari ay xaaxaam lool te soo ko diggaatee rek mu gaañ la waaw yéen kilifa yi soo leen si amee li ngi si sànni yokk ko ko rek ngeen ñëwee nii àdduna bi xam ne tam kaal ay mbokkam ñu ngi koy jàppale waaw kaal kontaan nañ léegi dangaa demee ni mais ida suñ anti bii sax waaw wala kenn rek mu ñëw macha allah waaw comme gars yi noonu la rek nuñ koy waxee nuñ koy faral di defee ah du yomba te waaw nit ku nekk si yoon ku nekka am na ñoo xamante ne ñoo nekk saboor ta yoon bi dafa metti dafa sori ta daf ci des wax kilifa yi dañu jàppale dañu pousse pour ñu gën am jom gën am fit ngir liggéey yaa booy nuyu neen la ñu bëgg nga wax askan bi tour bi ak yow lan nga si kaal ak tey soo doon wax kaal lu ndaw si yoon bu mu nekk lan nga koy digal. asalaamaaleykum maa ngi nuyu askan bi di nuyu mbooloo bi di la nuyu yow sa di leen fay ndax kontaan nañ lool di la wax ne kaal suma doomi nijaay la suma yaay ak papa ma bokk benn baay. ñu tuddee ko suma magi yaay ku bokk ak suma ndey ak baay lan tuddee taal maa moom ñu doomi nijaay ak doomi bàjjen ma bugga ko lool mu bugga ma lool taal tam nekk na xale bu nga xam ni xale bu am jom la xale bu am fulla la xale bu am si yoon bu baax pour dimbali ay kilifaam yoon bi nag métti na lool yoon bi du yoon bu ndaw bari na xaaxaam lool waaye gumba tax lu moo koy jàllale fotta noppam yi diglu ñu nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam di ko jàppale ay kilifaam di ko ñaanal yàlla nag yoon bi mu jóg yàlla na doon yoon bu gën ci moom te yàlla bu mu rëccu lu tax muy dem ci yoon bii yàlla na ko si yàlla jàppale ci kaw ci kanam di ko ñaanal nag di ko dénku mu moytul ma saay-saay moytul ma woyu ndax bañ weex na lool waaye dara te ko lal te xale bu ndaw la fas jom jàpp yoonam rek lañ koy ñaanal ci kaw ci kanam nag incha allah yaa booy kontaan nañ comme dégg ngeen ni mu ko waxee bu ñu weex na loolu waaye dara ko laal daf ko wax rek suma yaram bi di daw ndax fii ku nekk am nga jaar-jaar ak nit dafay ñëw di la signa nga ne kii moom a bugga waaye boo ko joxee gannaaw mu jam la paaka ndax moo ko wax paaka bu lay reen di sa waay moo koy daas bem nàmba jox ko sa noonu kon kaal nga sa doomi nijaay bi ki nga xamante ne sa jabar yoon yàlla la moom moo ko wax nag nee na nga bàyyi xel fas jom liggéey moytu àndandoor ak xarit yu bon asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi laa nuyoo sa bopp ak team bi ñu fi nekk ñëpp waaw man nag maa tudda Malobe Mbaye maak papi kaal ñoo bokk ndey a baay waaw man papaam laa waaw xanaa di ko ñaanal rek si lu mu nekk nii rek waaw yàlla waaw mu am si daal waaw loolu rek parce que comme dégg nga suñu anti bi ñu ko waxee. Mm. yoon bi bari na xam-xam lool. te artiste yi léegi ëpp doole yëpp mun naa wax ku ci nekk boo naanut yaa ngi tux boo tuxut yaa ngi ci yoon boo xamante ne mooy loolu léegi boo doon pour yàlla musal ko ci yu mel noonu tey naka nga ko doon digale waaw man yàgg naa di ko advice sax si yo façon yooyu noonu mm-hmm. waaw comme fu mu téye nii na ko téere mu continuer ko mm-hmm. waaw mu bañ a dem ba duga si yoo xam ne nii baaxul mm-hmm. waaw pour ëllëg waaw waaye nu mu commencé nii ak nu mu nii moom na ko ne nii rek continuer ko waaw waaw am askan wi foog naa ne dégg ngeen lu mu wax noonu ah dégg ngeen ñëpp wax nañ ba doomu jaayam wax na ay raki papa wax mom moom ci bopam waxna han ah dafa melni am amna anti bu bugg a mom tam wax su waxe rek ñu dokk ko ñun tagatu ak yeen waaw dañ ko baye mom tam mu nuyo wax aduna bi moy kan ak lan la ci kaal ak lu ndaw lu muy ci kaal rek. alaykum man la Aida man tal jabaram la papaam asmaa ñoo bakkan baye waaw tal mom ñu ñoo ñu ñoo fi nekk waaye xale bu baax la xale bu am yar waaw ñun moom amuñ luñ ko wax lu ñaanal ko rek waaw yoon bu jël daal yàlla na oyof daal yàlla bu mu gis lum si ragal waaw daf ne bàjjen ma ne nijaay waaw luñ ko ñaanal rek dafa am waaw incha allah luñ ñaanal daal nu mel si kër gi rek xam naa noonu la mel si mbedd bi parce kër gi moom jàmm rek kafre waaw nanga wut kenn def dara lu nit jóg ikkiti rek loxo mang ñu ko ñaanal daal. ok askan wi kon gis ngeen dafa mel ni this time suñ ko eh, artiste fii lañ ko dogee dox leen di dajee ak beneen épisode incha allah ñaanal leen kooru jàmm ndax kontaan nañ ñun tamit lekk nañ fi ceeb ba ceeb bi des ma ne nañ ma ko dugalal si mbuus ma yóbbaale ko ndax ceeb bi moom macha allah waaye tamit am du ma fàtte di gërëm roxi ndeysaan macha allah roxi kamara du ki nga xamante ne yàgg naa di ko wax yàgg na ci aar bi waaye yaatal na ci ñëpp euh, siiseewu si kenn soxorewu si kenn jàppale na doomam tamit jàppale na keneen ku du doomam ñu ngi koy ñaanal moom tamit yàlla gudda fanam may ko kàttan wér ak wérle ak may ko am am bi nga xamante daf koy continuer di ko jàppale doomi ja doomi aadama yi gars yi seen la seen soppe Ami fay ñu dog ko fii jox leen dox daje ak beneen épisode ba bye